تقرا الى الله وحده ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen tollu ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën xam mbooleem loo xam ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré del si waat na fii ci Ndakaaru indi leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom laay bëgg a lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo incha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon nag sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga koo yor demal nga seeti ko bu dee da ngaa yor bolotement dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kattan nag amu ca morom képp kum ci jàppantet ba njox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kattan force ngay yor lor euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante nii da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala li nga xamante nii moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi bi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cent cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. Eh, rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallama ala asrafi al wa maulana muhammadin sayidil mujahidin wa ala haadina al wa man ihtada bi haadihim ila yawmi din mbokki téléspectateur ak téléspectatrice yi siifur bi indi Farokh TV fi ngeen mën di nekk fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu nuyu bi nga xam ne mooy nuyub lislaam di leen ñaanal yàlla li nuyoo bi làmboo yàlla defal leen ko te mooy jàmmu ak yërmande ak barke seen mbokk Modou Mokhtar Diop dellu si ànd na ci émission bi ngeen di suumu tasihu mooy woor leen ndax ngeen wér démb bu ma fiy jógeeg yow andiloo naa ak yow feebar bi nga xam ne daloon na la ngay hésité ci koor ba xam yàlla tabaarakallaahu moo ko farataal wala nu mu demee feebar booba nekkoon sa xol bi tabaarakallaahu boobu faj na léegi kon leer na leen lu yàlla farataal la yonent bi àdduna sa Cheikh Ousmane Touré tabaarakallaahu ñëw na ak ci feebaru jëmm yi ba léegi bu leen dañ li ko diko xoo képp koo xam ne yore na feebar yooyu nga xam ne tabaarakallaahu publicité ba nga koy jàllale mooy lu jëm ci ballonnement cité hémorroïde ak ah néocarde nag ku amut appétit fatiguement général ak yooyu yëpp daal tabaarakallaahu mi ngi ci Cheikh Ousmane Touré numéro am nag mooy numéro boobu ngeen di daw ci publicité bi bu ngeen ko soxlaa si ngeen di wootee Cheikh Ousmane Touré ngeen di jot képp koo xam ne feebaru yaram dal na la seetil Cheikh Ousmane Touré waaye ko xam ne feebaru xol dal na la nag boo ànd ñun ci Farokh TV incha allahu rabbi nga xam ne si ak wax yàlla ak wax yonent bi ala kulli xaalin boo jëfandikoo traitement yooyu da nga wér kon Cheikh Ousmane mooy traité yaram yi ñun ñooy traité xol yi kon ñu seeti waa si ñu dugalal leen Cheikh Ousmane Touré incha allah ñu ñëw ci deuxième partie bi léegi. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré dellusiwaat na fii ci ndakaaru indil leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom lay bëgg lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo incha allah da nga daal di tàggoo mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon na sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga koo yor demal nga seeti ko directement dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kàttan nag amu ca moroom képp kum ci jàppantet ba jox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kàttan force ngay yor euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante ni da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bula joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat ci juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo la li nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension am dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré moom daal am na ci garab goo xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane ture am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi yi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cent cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. it kon mbokk yi Cheikh Ousmane Touré Ngok tabaarakallaa woo leen ko numéro mi ngi noonu waaye ñun nag tabaarakallaa ngeen nar a ànd ñun direct. ñun moom dag ñuy suivre démb bi ma fi jógee waxoon naa la ne la woor farata la yàlla moo ko farataal tey nag maa ngi nar a ñëw yow di la waxal ki nga xamante ni xoor moom la war maanaam ci moom la yàlla farataal koor doxut ku nekk rek la yàlla joxoñ ne ko xooral dafa am ñu yàlla wax xoor leen am ñoo xam ne yàlla wax na leen bu leen xoor ku yàlla wax xooral nag boo xóoru duma mu méttee lay xaar mooy dugal la safara ku yàlla wax na la nag bul xoor ndax tolla góofa boo xooree yàlla bind tiyaam kon tey ki xoor war moom ngeen nar a àndat ci Modou Mokhtar Diop ci suumu tasiwu ci Farokh TV mbokk yi ki xoor war moo nekk am mukallaf waaw mukallaf nag buñ koy wax dafa am sart yi dajee ci nit ki tax ñu ne ko mu mukallaf nga lu dangay lekk ba sur rek ñu ne la mukallaf nga wala nga dox ci mbedd ñu ne diw mukallaf la wala wala yeneen ak yeneen déedéet shariatu ci boppam moo rëddal nit aw yoon ne ko lii ak lii ak lii bu dajee ci yow wala ay màndarga ne ko yii ak yii bu dajee ci yow yëpp wala nga gis ci benn rek xamal na léegi am mu mukallaf nga mu kalaf nag buñ ko waxee wala boog bu bu la dalee lépp loo xam ne yàlla farataal na ko ci sa papa yow ci jaamu yàlla wala mu farataal ko ci sa yaay ci jaamu yàlla xamale farataal na ko ci yow kon boo xasee nekk mu kalaf dootoo xale ci yàlla ñun nag ñooy dem mbaam am 40 ans naan xale bu ndaw laa ci ñun àddina yi waaye yàlla moom soo ma dee mu kalaf rek léegi jàppee na la paa muy jàppee na la sa papa bu dee jigéen la jàppee na ko yaayam ba tax na lim farataal si ñoom ne la jaamu ko maanaam lim farataal sa papa sa yaay ne la nañ ko jaamu yow doom ji it loolu la yàlla farataal ci yow ne nañ ko jaam kon boo ma dégloo su ma la waxee kan mooy mu kalaf bu la dalee rek xamal ne weeru koor yii boo ko wóorut te yàlla yaa moom la mbokk mu kalaf bi si njëkk mooy dañuy wax ne na nga am xel kon cent vingt ans boo ko dundoon te amoo xelit tabaarakallaahu nga jéggal ma mooy nga nekk ab dof xamal ne yàlla farataalu ci yow koor kon bala ñoo wax ne diw mi mu kalaf la première fois mooy day am xel ba pare waaye boo amee boo amul xel loo mage mage mage mage xamal ne taxut laa nekk mu kalaf yàlla togg la dara ab dof dara warut yàlla du ko bindal bàkkaar boo sàccee yàlla du ko wax dara bu siifee nit viol ko yàlla du ko wax dara bu naanee sàngara moom dof bi laa wax de te yàllaa ko bindee yàlla du ko wax dara lum ah, lu mu def ci bakkaar wala lu ñuy tuddee bakkaar si ñun ñu wér ab dof bu ko defee te yàlla moo ko bindee dof googa na xam ne benn bakkaar waru ko sax waxuma la nga dofloo sa bopp bu fekkee yaa topp affaire yooyu yi ñuy naan wala yi ñuy tux di ko xëcc xëcc ba sax xel mi dem boobaa nag moom yaa ko yóbboo sa bopp moom yàlla da lay duma waaye bu fekkee yàlla moo la ko bindee nag xamal ne yàlla wàcce na la lépp kon première fois rek tabaarakallaahu na nga am xel su fekkee Ibnu Asir jege na la jàngoon ko bu dee da nga koo fàtte rek xëcceel ma fàttali la kan mooy mu kalaf waxoon na la ne wa kullu taklifin bi sharti aqlin maal buluuxi bi dammin aw xamlin aw bi maniyin aw inbaatin saar aw bi thamanina ashratan xawlan zaar waaw borom ibnu asir nee na nit ki bala ñoo mën a wax ne mukallaf la na fekk ne am na xel gannaaw boo amee xelit beneen sart ba sa topp may na fekk ne def nga gént waxuma la gént sa papa may na xaalis nag waxuma la gént dem marché waxuma la gént di xeex waaye ban gént ngay gént charia la ne la mën nga kalaf mooy gént nga sëy ba mën niyu génn ci yow loolu la ñuy tuddee gént ay gént yeeg ci étage daanoog gént di xeex rek ñu ne la mu kalaf nga boobu gént taxul ñuy wax de gént tax ñuy wax gént mooy gént sëy ba mën niyu génn ci yow kon boo amee xel nga am sept ans gént sëy mën niyu génnut ci yow dañu la mu kalaf dégg nga doo am xel am dix ans ñu ne la mu kalaf nga kon gannaaw moo xamee xel ba pare première sart bi taxaw mooy soo géntew sëy ba mën niyu génn si yow loola nag mandarga la boo xam ne bu feeñee ci yow rek yàlla fanaan la nekkatoo xale jaamu yàlla gi war sa baay war na la gi war sa yaay war na la gi war sa bàjjan war na la gi war sa nijaay war na la kon weeru koor wii ah, soo géntoo sëy ba mën niyu génn ci yow muy yow ku góor wala yow ku jigéen su boobaa xamal ne weeru koor wi yéen tabaarakallaa war na la te loola mandarga wu lay wan ne dootoo xale si yàlla la beneen bi bu dee jigéen la gis na ngànt tam am dix ans jëm kaw bu amee ngànt foofu na xam ne léegi mën na mu kalaf waaye nag bu dee jigéen dafa am sept ans commencé gis deret nañ jàpp ne feebar la moom feebar la na dem faju ji sept ans moom gis ko deret doy na waar bu dee ay neuf la jàpp huit bu ci gisee deret dañ koy laaj jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo gis deret ñu xool bu ñu ngànt la ñu ñu ko ngànt bu dee du ngànt bu dee dañ ne du ngànt ñu ne kon du ngànt feebar la mu dem faju ji waaye nag su ma dee douze ans jëm kaw boobu amatul laaj foo moom bu fa jigéen gisee deret rek dañuy xam ne kii léegi mu kalaf la nekkatul xale kon loolu ba leen ci xel kon jigéen gi kenn bu gisee deret na xam ne lii yàlla fa koy wan ne ko léegi nekkatoo xale mag nga waaye nag wax naa la bu dee sept ans la feebar la bu dee dix ans la nañ ko wan ñi ko yàgg a gis su fekkente ne nii nag jëm nag douze ans jëm kaw nañ xam ne nag léegi lii moom ala kulli xaalin deret la kon loola jigéene ko moom wala boog ëmbu loola it jigéene ko moom donte cinq ans la xam wala six ans bu ëmbee xam naa ne mënta ne sax waaye dama laa bëgg wax ne la loo teel a teel a ëmb xamal ne lii yàlla fa lay wax ne la dootoo xale léegi waaw kon heure bu ëmb amee rek masalan jigéen gi gisul deret géntu say génne man niyu waaye li ñuy tuddee ëmb dal na ko ak lu mu ko mënti fekk ci at na xam ne ko nekkatul xale waaw kon nag léegi bu subaa danga may topp ma continuer yow li des si ma euh, mandargaay mu kalaf ndax bëgguñ émission bi du gudd lool ba ëpp comme danga koy suivre te bëggoo dara rëcc la ci ñu koy def heure yu yem nga xam ne da ko mën a suivre incha allahu rabbi kon daal yemal si ëmb gi kon li ma waxal tey mooy xel gént gis deret ak ëmb bu subaa nag bu mu ñëwee yow ma hegg li la yi des asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré dellusiwaat na fii ci ndakaaru indil leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da yor jàngoro yi nga xamante ni moom laay bëgg a lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo incha allah da nga daal di tàggoo mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon nag sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga koo yor demal nga seeti ko bu dee da ngaa yor ballottement dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kattan nag amu ca morom képp kum ci jàppantet ba jox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kattan force ngay yor yor uh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante nii da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom uh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf uh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala li nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi yi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cent cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV. ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne ilallahi wahdahu yanaalul